l'actu sur King FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les brèves que nous démarrons avec le doigt des uses euh, qui reprend ses auditions dans l'affaire Petrotim. Ce lundi matin, il reçoit l'ancien directeur général de Petrosen, Ibrahim Mbouch, a rappelé que le doigt des us d'instruction a commencé les auditions depuis lundi dernier. L'appel du Khal général d'Etiyan pour dire non à l'homosexualité conforte la position de l'ONG Yamra. Selon son président Mamatar Gueye, il était temps qu'une voix religieuse s'élève ainsi, il appelle aux autres khalifes généraux a emboîté le pas à Serigne Babakarsi Mansour. Ce lundi est un jour ouvrable, il n'est pas donc férié. Euh, c'est une, précision, du ministère du Travail après des rumeurs qui faisaient croire que ce lundi est bien un jour chômé et payé. Les personnes impliquées dans l'affaire de 750 kg de cocaïne saisie par la marine nationale ont tous été euh, identifiées. Le quotidien L'Observateur qui donne l'information a dressé leur profil dans sa livraison ce lundi. Il s'agit donc de trois Marocains, un franco-sénégalais et un sud-américain et une sénégalaise. Sport, qualification Cannes 2021, les Lions ont débuté le regroupement ce dimanche. La tanière est basée à Sali pour préparer ses deux prochains matchs contre euh, le Congo et les Swatini. Mais l'équipe ne sera au complet que ce lundi soir après l'arrivée des Lions qui ont joué dimanche en club. La première séance est prévue cet après-midi au stade de la Dior de Kies à 18h. Elle est donc ouverte à la presse et au public public euh, de la musique pour terminer ses brèves. Nous vous proposons aujourd'hui donc cette belle chanson de Souleymane Faye intitulée Harit Khalam avec Doudou Ndiaye Rose. Il chante ici à l'amitié. Écoutons. Dans un instant. Yenigi de King FM 99.4 xibaar yi tënk lay doon dañ koy tàmbalee kon ak doyen des juges bi nga xam si tey jii lay daal di euh, wëyal ay audition ma euh, tey ci altine ji nag ci suba teel gi ki mu nar a daal di euh, woolu moo di directeur général bu Petrosen moom sax moo ko fi nekkoon ci ay jamono di Ibrahima Mbodj ñu fàttali ni tamit moom doyen des juges d'instruction daal di nay tàmbali ay audition ma ni ki altine bi ñu weesu ñu daal di wax kon ci wooteeb xalif général de Tidiane daal di koy jëmale ci mbirum góor jigéen nee na nag mbir moomee du yoon te nguur da cee war a wax loolu nag waa ONG Jamra ne dëgg la tey dafa jot sëkk ngir euh, kon euh, ab euh, xalif général daal di ci wax loolee nag ñu daal di koy rafetlu ba noppi di woo yeneen xalif général yi nekk ci réew mi ñu daal di def ni Serigne Babacar Sy Mansour def tey ji altine la bés la boo xam si dañ ko war a liggéey loole kon ay leeral la yu bàyyeekoo ci ministère du travail ñoom nag nee nañ dañoo dégg ay rumeur di xam ne ni tey jii ci altine ji bisu férié la te loole kon demewul noonu ñu daal di wax ci mbirum juróom juróom ñaari téeméer ak juróom fukki kilo yi cocaïne yi ñu jàppoon te marine nationale defoon lu ni mel loolee nag jàppale ni kon ñin ca tuddoon ñëpp mujj nañ leen a jàpp l'observateur mi nu baaxee xibaar yi sax daal dinay fay xës xëy kon feesal ceew xëtam euh, ñeenti xaar yi nga xam si juróomi xaar kanam yi nga xam si kon ñoom lañ ci daal di jàpp ñetti doomu réew Maroc lan ak kenn koo xam si euh, doomu Sénégal la te yaroo fale ca France ak benn sud américaine ak benn jigéen boo xam si moom fii nii ci Sénégal la daal di dëkk rawatina ca Fouta wàllum tàggat yaram qualification CAN 2021 jàppale ni gaynde yi démb leen tàmbali seen ay euh, regroupement euh, ñoom nag fële ca Saly la ñuy daal di euh, nekk ngir waajal jongante bi nar a dox seen diggante Congo ak Eswatini équipe bi nag tey jii ci ngoon la nar a mat li ko waral moo di bëri na ci ñoom ñoo xam ne dañ doon football démb ci seen ay club séance bu njëkk bi nag ngoon lay doon ca stade Lat Dior ba nekk ca Thiès bu juróom-benni waxtu ci ngoon jotee presse bi ak public bi yëpp lañ ko daal di ubbil musique la ñuy jeexalee xibaar yi tay nak ñu leen di diktal woyu Souleymane Faye bi mu duppé xarit mo andon ci kon ak Doudou Ndiaye Coumba Rose ñu tewlu kon li teunk la won ci ay xibaar yeneen xibaar 8h30 lay doon waye légui légui Al Ndiaye ak équipe bam ñoy wéyal King Morning. merci Sadio c'était l'essentiel de l'actualité mesdames et messieurs.